élection présidentielle yi lépp la nga xam ne information la di ngeen ko am en temps réel ko am information yu leer nañu moom mu ngi noonu ngeen xam seen candidat bi ngeen di suivre exactement ba tey fu mu nekk euh, fii ak ay fan ci élection yi mu noonu naa ci kanam tuuti bu ñu dugg ci biir biir biir Tiwaawan dina leen may ambiance jeune yaa ngi noonu daw topp Ousmane Sonko waa kañ mu ngi noonu jeune yaa ko topp seetlu bi nag mooy Ousmane Sonko ngaay fii fi nga xam ne ci waawoon fu mu romb daan ndaw yi topp nañ ko malgré que caravane bi dafay guddi parce que ay 19 heures la ñëw fi nga xam ne mooy ngaay mais ba tey ñëpp jeune yi génn woon nañ génn ñii ay jegaxtaar am na ci ambiance waaye aussi li ñu xale yaa ngi noonu daw di ko topp ñu ngi noonu ñu ngi noonu jeunes yaa ngi noonu sol seen t-shirt Ousmane Sonko topp seen liggéey maire yaa nga ca ñoom tamit maire ya génn nañ génn nañ génn nañ génn nañ maire yaag jeunes yaag yëpp ñoom ma ngay nuyanteeg ñoom. yoo de soo ko ñëw de mu ngi noonu. Sonko ngoog. ci Tiwaawoon. élection yi des quatre jours rek. ngir ñu xam kan mooy nekk njiitum réewum Sénégal. pendant ce temps Sonko moom mu ngi jaay programme am ndaxte ci page Facebook am li xam ne mooy programme am mu ngi ko def en 10 heures def ko ko mu accessible mu ngi noonu UOD Sonko mu ngi ñëw mu noonu guddi na waaye ndaw yaa ngi topp ñoom ñëpp ñu ngi daw topp ci ginnaaw caravane bi. coalition Sonko présidente ñu fàttali leen instant bi ñu ngi fii ci Tivaouane bi ñu jógee Ngaye Mékhé ak Pire wante ak euh, jaar nañ aussi Pal wante nag ñun euh, Ngaye Mékhé la ñu jëlee mu ngi noonu comme ni ngeen xoolee direct rek tout à ñu leen ko defalee Ngaye Mékhé defale leen ko Pire noonu lañ leen koy mayee nii. woon bu ñu fi nag jàll sa kees Sonko ngi noonu mu ngay nuyanteeg jeunes yi Sonko ñaari dëkk yi ñu jot nag déclaration bu gàtt rek la fa def wax ji guddul wante nag ci waxam lépp li wax bu jàppee ca Ndiaye Mbexe wax na ñi nga xam ne mooy